Cheikh Ahmed Cissé ñëpp nangu ne boroom xam-xam la à chaque fois ay chronique am wala ay analyse am nit ñi dañuy nangu li muy wax mu génn mën naa wax contredire say wax dem ba ne sax euh, li ma ubbee sànq samay njëlbeenu kàddu mooy euh, jóge ci euh, cantaakun dem ci seekaakun ba samp sax ab laaj ne Omaro kii tii ba way tontu Cheikh Ahmed Cissé Omaro yaay kan. <laughs> waaw li may tontu Cheikh Ahmed Cissé mooy moom suma xarit la su ma soppe la maa ko bëgg sama bopp te yàlla tax boobu ma ngàmbi di def ay vidéo di ko dugal ci YouTube bi ma ne waa ji de ku ma neex la ndax man dama bëgg nit ku doy loo yàlla mooy nit ku xam ne ñu tagg la wax la lu baax taxul nga jariñu ñu saaga lay ndey itam la dem ba góor jigéen naafeq ak giwin ak hypocrite ak gigolo taxul nga yàqu la jariñ waaw la lay jariñ yàlla la la lay lor yàlla la man loolu laa gis ci moom te man lii ma lay wax nii dama ko yéex xam lii ma lay wax nii ci wàll laa ko la lay yàlla la lay yàlla la mm. waaye man demoon naa ba jàpp ni nit mën na maa jariñ demoon naa ba jàpp ni nit mën na maa lor waaye sama ànd ak ma may ma xam ci ni ku yàlla bind mënoo maa jariñ ku yàlla bind mënoo maa lor yàlla mooy jaar ci maaraa jariñ ma yàllaay jaar ci maaraa lor ma waaye du maaraa tawxiit googu nag la Wally Seck def ci man loolu nag laa bëggee woon Ahmed Cissé faa ko ba noppi mu nekk nit ku neex nekk nit koo xam ne tubarkàlla comédie bi nekk ci moom kaf geeg foo dafa ëpp waaye li muy ëpp ëpp ëpp yàlla dala may digg-digg nga amuk dégg lool waaye nag faw léeg-léeg mu am yuy rëcc déedéet du piège de am yuy rëcc am siise dama ko rëcc ah dama ko rëcc sama xarit la ku ma bëgg la nit ku baax la mantulaay mii secrétaire am général sama rakk la hmm. sama rakk moo yor léppam lépp lu ma gis ci internet bi mu neex ma ci moom dama koy capturer yónnee ko sama rakk ne ko sama waa bëgg naa ko kii yàlla na ko yàlla fay dama koy apprécier dama ko sopp ku ko sopp laa te moom xam na loolu waaye man dama ko rëcc ci sama communication bi maanaam dafa réer bi te pour daa nag mënoon naa bañ a réer ndax maag moom a bokk benn taxawaay Ahmed Cissé fi mu ne laa ne boo gisee li tax mu faama moom fu mu toog ne Omaro dama ko bëgg parce que moom xam na ne tey bu doon Omaro nii lay mel Omaro it ne tey bu doon Ahmed Cissé nii Ahmed Cissé mel lay mel parce que dañu bokk benn jikko bokk benn xaraat bokk benn vision waaye dama ko réer dama ko réer amee Cissé dama sa bopp bi fi ma communiqué mu toog dama xaar lam dégg ak nam ko analyser dafa wute dama ko réer te ni ma ko réeree expliqué naa la ko léegi mooy yàlla doo ko nangul ab taw xiitam ci jaam jóge ci prison nangul taw xitub jaam ci suñu borom jële ko ci tawat nangul taw xitub jaam ci suñu borom jële ko ci tukki nangul taw xitub jaam ci suñu borom jële ko ci accident ba pare ban koo bañal ci nit mënul nekk wala xadd karam naa ban ni aadama doomi aadama moo gën accident moo gën tukki moo gën kaso moo gën moo gën moo gën moo gën feebar kon nag li ñuy nangul yàlla ci mbir yooyee nañ ko koy nangul ci jaamam yi moo tax ma ne la Ahmed Cissé daf dama ko réeral ci communication. mais mere woo ko mere ko ci numérologie. tey laa ko a bëgg Ahmed Cissé bu seeraanee sama vidéo bi ma invité tey laa ko gën a bëgg. parce que nit ku baax la